mooy dugg nii buñ ko mënee dugal Pape Mbaye Peex moo dagg appel bi salaamaaleykum papa waaw dugal naa la direct waaw Mbaye <coughs> Mohamed Mohamed man maa ngi ni peex ci guddi laa jógee Dakar ñëw peex dëgg la Mbaye léegi lañ may sama waa kër ñoo ma fëgg sax yeema wallaahi wax ma xew-xew bi ndeysaan mhm. waaye ñàkk nañu ku baax wallaahi ku jàppale bugaan mhm. mhm. nu ñuy wax ñëpp ku ne ku ne yaa ngeeg ba seen wallaahi mhm. wallaahi. koor bi jotee ñun ñëpp lay xotti. dëgg jox na luñ ko ñawloo. Mhm. am yëpp. billaahi. bëgg bugaan. billaahi ndeysaan. waaye ab jaambur ab jaambur ab mhm. kenn xamul ko dara. déedéet. dox ci moom ba gis ko ci xew jafe na. billaahi. dox ak moom gis ko ci xew. wala nga gis ko mu fecc wala nga gis ko muy wax wala nga gis ko muy taatu. Mm-hmm. baa nga dégg ko muy wéy. déedéet. amut. déedéet. ku ko gis ku ko gis këram nga ko fekk ak ci njabootam. dëgg la. lu ko naqaree kenn ko xam. déedéet. nit ku yàlla la. koo xam ne kii du jabar ndey la. oh ndeysaan ndeysaan ndey la ci bugaan dëggal loolu ndeysaan ndeysaan ndey moom moom ndey la ndey la ndey la ci bugaan dëgg la dëgg la wallaahi dëgg la euh, France la gaañoo non Sénégal la gaañoo mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi Sénégal gi këram gi këram góor gi fii këram la génne àdduna 17h30 lañ ko génne 5 heures 5 heures demi Mantulaay waaw Mantulaay à 17h30 17h lañ koy mhm. denc fii ci sëwu sëwu yoo fii mais 17 16h30 euh, la la levée corps bi fii ci mosquée bi nekk West Foire. incha allah mhm. incha allah. Mhm. incha allah. am solo daal billaahi dëgg la mbay. ku ku ku wallaahi. keroog bi ko sëñ Moussa Mouhamed. borom a fi bàyyil xatiib mhm. nga gis nga gis ñu mu taxawoo sëriñu bugaan ndeysaan ak ni def sëriñ bii rek kam yi ak njaboot bi mhm. njabootu sëriñ Cheikh Gaye defaat ma ñu mhm. mu leen def ah dañ koy jaar sëriñ Moustapha wallaahi wallaahi dañ ko jaar sëriñ Abdourahmane Gaye defaat ma mooy sëriñ Cheikh ndeysaan jaar ko sëriñ Moussa Mbacke mu taal si Mbacke Soxna Lo ndeysaan. ak njabootu Daaru Xuddoos baayam. ndeysaan. moom mi miinoon na ko. dëgg la. baayam. dëgg la. jaal ko lislaam bi yëpp. dëgg la. dëgg la pap wallaay wallaay wallaay wallaay jaal ko yaayam jaada. dëgg la. yaayam jaaga yaayam jaaga ku baax la. ndeysaan ndeysaan. wallaay jaal ko opposition bi yëpp itam. ndeysaan. jaal ko membre gouvernement bi la ndeysaan. ndax euh, am xëccoo mën naa am ci digganteem ak euh, état. Mhm. waaye noonu état état. Uh-uh. déedéet. lu mu mën a am it dëgg lay wax. dëgg la. ñoom it bàyyi nañ ko xel. kon jaal moo war sax. ak ak premier ministre ak ministre de l'intérieur. ndeysaan. waaye jaal ko opposition bi yëpp itam. dëgg la. jaal leen ko. ndeysaan jaal ko Sénégal. jërëjëf papa ndeysaan. ndax bugaan bugaan mooy Sénégal. dëgg la. Mm-hmm. incha allah bu mu neexee yàlla. baax na mbay kon ñu ngi lay xaar incha allah. waaw waaw waaw ba ci kanam waaw. ba ci kanam mu ngi noonu euh, papa Abdoulaye Mbaye Peex gis ngeen. préfet Jibi Diallo aussi moo dugg préfet Jibi Diallo aussi préfet Djibi Diallo ah, wax nga dëgg Djibi Diallo ñu jébbalu leen ko jaale yëpp mm-hmm. Ousmane Dia aussi directeur bu sunu xarit bi waa Ousmane Dia directeur des établissements santé publique aussi mi ngi jaale groupe bi yëpp Fabrice ñoom Cheikh bu nekk dugg euh, euh, benn la te sa bi may door dama ne kilifa gu nekk ëllëg dañuy laaj noo sàmmee sa njaboot mm-hmm. euh, te nag Bougane kii kon nga xam ne mooy Momy Dany kilifa kër gi la. waaw te personnel bi yëpp kàddu gi benn la. Mhm. mooy ni mu sàmmee kër gi ba ni mu wuyoo. Mhm. yaakaar naa ne zéro faute. mbir mi daal. en fait euh, lenn rek laa retenir ci moom. Mhm. discrétion. nit bu effacé. mais ndekete moom dama ko doon gis. fële Médina. Mhm. pendant presque trois wala cinq ans. man je savais pas qui c'était. wallaay bëri nga ci morom. même moi. je savais pas qui c'était. bëri nga ci morom waaw dama ko doon doon bonjour bonjour. léegi benn jour je discutais avec Fall Bougane. Mhm. bi euh, kii direction bi nekk chantier. Mhm. dama doon romb foofu parce que sama lieu de passage la. je dis mais man mais kan mu ne mm-hmm. ma et pourtant chaque jour mi ngi foofu je dis non mais je ne la connais pas mosuma ko gis. léegi benn jour mu tombé femme bi ñëw. après il nous a fait les présentations léegi elle m'a rappelé benn jour dama doon kaf nii rek man daal man maa dàq sol costume ci Afrique. elle me l'a rappelé que benn jour lii nga doon wax. c'est pour dire que donc moom. daaw nitu yàlla la. ku baax xam nga xam nga euh, moom yi dafa tolloon foo xam ne nii euh, ñu bëri tey buñ ci tolloon ñu dégg leen man maay doomi coon sekk bu ko neexoon bajantu si. dëgg la ndax tiitër la. man maay jabaru bugaan ngay dani su ko neexoon tiitaru si bajantu si. Mm-hmm. toll na foo xam ne nii man maay moom dani ku ko xool ci taar ba. Mm. bu ko neexoon bajantu si. ndax macha allah yàlla def na ko ci moom. waaye mu jël lépp teg ndële. mais man man man maa màggu wàlli balago sek. maay màggu wàlli balago sek bu ko nee ma <laughs> jiitaru si bajan bi si. Ah. mu jël lépp teg ne tànn bii gën a bii nga xam ne peut-être si âge am. Hmm. si jamono ji ñu toll moo gën a jafe muy def lu baax. dans la discrétion. absolument mu di ko def lu kenn xamul. mais loolu moom bettuma de parce que ku xam papaam. ak hmm. yaayam. tu sens que franchement moo ji. billahi franchement ci éducation. mënul mel leneen lu dul nii. mais mais xoolal xoolal tey euh, fabrique euh, jigéen. wujju boromam sa wujju di ko jooy. jooy ça veut que moo lay wan ni euh, ki dem tey lu mambay lu nit mën a wax mën a wax même bu nu seedewul woon. yàlla mi ko bind xam na ni moom ku baax la. Mhm. gis nga li nga wax ni xam nga kañ laa xam ne moom mi man daaw ñaataat laa def seen TV te xam nga kat ma ko woon Fatou Abdou. mel ni laa ñëw fekk moom ñuy séddale ay ndogu ci kaw ma tooñanteeg nit ñi kaf ma ni Fatou Abdou kii kan la mënuma mooy muumi ci saas dama am sa te ñaata yoon la ñu nii fii ay tisi mm. mais tey jii am na koo xam ne bu doon moom dina seetaan ci télé bi wala mu bëgg ku koy nuyu chaque jour wala mu xaritoog nit ñi feeñ télé nuyu leen ma wala boppam wala muy ñëw fii chaque jour sonal nit ñi mais damay wax ni ku baax dem na mais ma mbay dina fekk ku ko gën a baax mm-hmm. yàlla ku baax dem na mais wallahi moom mi dina fekk ko gën a baax yàlla moo ko gën a baax hmm. parce que pambay peex li mu wax léegi koo xamante ni sa boroom kër damay wax ni ñëpp a mën a gérer Bougane waaye superlatif moom i kenn dàq koo mën a gérer Bougane kenn dàq ko am maîtrise ci jëflante ak nit ñi ci mbaax ci lewet dafa am benn bés ma génn grand plateau déconné hmm. mer dem deux heures du matin trois heures mu woo ma téléphone ni ma oustaz noo def moom noo def leex ma ne ko waaw euh, directrice maa ngi lay ziar nangam nangam mun ma oustaz kilifa nga grand plateau kenn mënu la ci kenn mënatu ci lay génne sa luwa la nit ñi dee xaar sa nangam la ñuy xaar ni ma bul defee nii nangam nangam euh, lan moo xew ma ne ko nangam ak nangam moo xew mun ma ëpp naa def doxeel nii ak nii rek kilifa noonu lay doxee ni ma xam na da ngaa sonn naa la bàyyi parce que maa ngi sant ni sa voix daa dee bi ci yar bu bu simple ci ci yar bu dal boo xamante ni dina la orienté ba yow da ruus a ñaan yàlla yàlla boo jàkkaarloo ak moom li des ci semaine bi wala un mois bi. Mhm. da ngay toog deux jours fekk Moussa ci suuf mun la moom yi moo la jox benn paquet nga ibbi fekk mu nekk Getzner. nii la ma ko defalee. ba pare léeg-léeg mu jël enveloppe teg ci ne la nee na nga ñawlu. nii la defal na ko ku ne gis nga Mambay weeru gàmm la ñu nekk. weeru yonent bi la ñu nekk. démb la ngéntali fajar gi ci la génn àdduna. te ñëpp xam nañu cofeel bi moomi am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala yàllaa ko gën a baax metteegul de parce que émotion bi dafa yéeg mais wàccagul mm. ma bay émotion bi mooy ñëpp ñu ngi wax njaga nee naa émotion la ñu wax mm-hmm. dafa yéeg waaye wàccagul mais pour nga xam réalité génn na àdduna bi ñu defalu documentaire ci moom wala nit ñu wax mbaaxam billaahi ngay xam ni ku baax léegi Alima day laaj ndax am nañu vidéo ay ca oustaz ah, euh, mën nañu mën nañu jël parce que nit ñaa ngi euh, bëgg dugg ci ligne bi mën nañu leen jël ci 88 628 89 90 wala ci 88 628 28 28 ñaar yëpp buñ ci euh, euh, duggee dinañu euh, jot ci 88 628 89 90 mbaa 88 628 28 28 melo ñu ngi lay nuyu di la masaw li ñu bokk oustaz moom bokk na ci ñi nga xamante ni ci biir kër gi moom i dani géey moo leen fi indi mm-hmm. keroog bi mu ko waree indi ba woo ma téléphone ne ma xam nga ko ma ne ko waa xam naa ko mm-hmm. mu ne ma noo ko gisee ma ne ko ah il est bien doon naa ko seen mais il est bien mu yónnee ma numéro boo ma mayee ma dugg rek soxna moom mi wakaam. ayca salaamaaleykum soxna moom mi. waa kay Oustaz ñu ngi lay ziar bu baax. ñoo ngi lay delloo ziar bu baax a baax a baax. maa ngi leen di jaal bu baax di ñu bokk. ñoo ngi la koy jaal yow itam. waaye moom yéen na ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbal alamin amiin ñëpp a ngi lay dégg. ci xaaral ko àjjana fi daw si. amiin yaa rabbal alamin amiin yaa rabbal alamin. moom mi xajoon na fi ndeysaan bàyyam ba mu demee yàggul. ah waaw dëgg la wallaahi wallaahi. wallaahi wallaahi yàlla suñu borom bu soxlaa jaam day ñàkk. wallaahi wallaahi. yal na ko yàlla yërëm te xaar ko àjjana fi daw si. amiin yaa rabbal alamin fa mu jëm yal ko gënal fuuf fi mu jóge ci barke nabi Mustafa. amiin yaa yaa rabbal alamin. Sénégal ñëpp ñoo ñàkk. dëgg la dëgg la dëgg ñoo ñàkk du du du Bougane du Sen TV du mi monde bi monde bi ñëpp ñoo ñàkk moom mi Gueye dali ndeysaan. ku baax bu demee ñëpp ko ñàkk. baax na gën na dafa baax te gën moom mi moo yaru non moom mi moo dal moom moo am sutura oustaz li ñu bëgg ci jigéen ci soxna yëpp a ngi si moom mi macha allah. yàlla ko ca jiitu ba mais Alima. Mhm. Alima moom mi gaañu na. non la waaw ma ko man gëmuma ko yàlla ma yàlla baal mais. billaahi comme gént ci man. Mm-hmm. non man est ñi que nit ñi juumuñu photo yi moom bëgguma koo gis ci TikTok bi man dama koy romb parce que dootu naa ko statut mais gëmuma ko barke Seexul Xadim allahu akbar mais bon yàlla man daal balaa may gëm moom yi dafa dem man toog yëg at at at at yu may ko ma xam ne ko dafa dem. baa na moom yi incha allah dinañu déggante nañu la bàyyi. Mm-hmm. ñuy dugg dugg ndeysaan moom moom moom moom mu ngi noonu gis nga imaam maa ngi lay nuyu di delloo ziar ko maa ngi la koy jaal yow itam. wallaay wallaay wallaay di leen ko jaal yéen tamit. wallaay bi ñu la ko tàggee xam naa am nga naqar lool Mike xuma ca ca ca ca France Italie Italie sunu xarit. Mhm. Eh, gis nga mu ngi noonu moom itam ñëpp ngi ñuy yónnee yónnee ay a ngi ñuy woo tamit. Eh, man dama yeewu. fekk daanaka lu ëpp 22 appel sama téléphone. Mhm. nekk nit ñi 6 heures du matin lañ ñu commencé woo. meloo ñi ngi la koy masawu itam bu baax. di leen ko masawu yéen itam. Mhm. di ko masawu euh, Sénégal gi yëpp. Mhm. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo tey nag euh, yeewu nañ ak nouvelle bu tiis. bu yéeme sax. moom mi dama naan moom mi Sénégal la. tey boo xoolee ca statut yeeg xool ci réseaux sociaux yi ñëpp a ngi naqarlu. man nag jotuma ko sax gis. te moom mooy ki ma woo ma ñëw fii waaw. ba may woo ñëw rek woo ma. Mhm. daf ma message. Mhm. dama see moom est-ce que je peux t'appeler. xoolal yaru boobu kon boobu correct. yaru. waaw. bu doon natt dafa teggi. waaw xam nga tey loolu. dafa nekk ay yoo xamante ni te damay dégg borom xam-xam di wax naan yàlla du yónni ku yaradiku. du yónni ku ëppal. Mhm. du yónni ku waaw ku bari wax. donc jikko yëpp dafa nekk ay jikko yu yu baax yu daje ci moom lii mhm. ñëpp naan yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel amiin waay loolu la ko ñëpp di ñaanal ndaxte cat da ngay dégg wala fi naan day topp nit ba ci bàmmeel man nag li ma gën a gën a gën a marqué ci moom